Madame, moi li nga wax sànq escroquerie du siècle bi ñu gis ci politique. waaw effectivement tey li mu bëggoon ñëw na joué ko ci kanamu nit ñi wane genre esprit alors que du Effectivement. Et puis, il nous a dupé. Le rassemblement des patriotes du Sénégal, au début, les coordinateurs qui sont venus, ils nous avons d'un moment. Nous Parce que quand même, nous avons fait beaucoup donc Lolo indi détail. Euh, rassemblement des patriotes du Sénégal ba ci yi parce que man j'étais pour que les gars yi nañ garder couleurs yi mêmes couleurs parce que li de def si parti c'est pour pour le Sénégal Ce c'est pas pour une personne parce que déjà moi, wax na pas mais gëmul lu muy wax parce que moi, je na mu wax ne mu ne euh, bu demee ba moom mu poser problème si parti bi dañ ko je a dindi wala moom mu dem nous depuis 2021 il est l'élément le mot doon jéem <laughs> parce que le jour je ma suis dit, avant parce que nous benn pas de yow yaay problème en France mais mon tey problème c'est parti au Sénégal parce que mon problème personnel mais comme ko mbubboo buggul parce que xam na bu politique parti euh, ben que amatul bouclier bi nga xamantene ak yi muy gëmlo complot dañ ko complot ci bërëbu salon yu mel Tap Tap sen muy application bi tax nga mën yonni ak jot xaliss bitim rew ba Sénégal li ci neex moy 2 euros dong ngay fay ci bitim rew ak lu xaliss bi mën toll. soo Canada États-Unis wala Angleterre do fay dara yomuna